salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci vidéo bu gàtt jëm ci équipe nationale bu Égypte ñoom nag ñooy jàkkaarloo suba ak Sénégal match retour la nag match ale ba Égypte moo amoon ndam benn bal ci dara suba nag la retour bi 17h la match boobee di door waaye jamono jii may wax ak yéen équipe nationale bu Égypte yegg nañu ci stade maître Abdoulaye Wade ngir waajal match boobee maanaam entraîné fa waaye laata ñuy entraînement nag def nañu conférence de presse Gabaski ak koy tàggat. kay tàggat Égypte googee gépp di Carlos keros ñoo toogoon ca conférence de presse ba waaye Carlos Queiroz moo njëkk a yëkkati kàddu la mu xamle moo di ñoom dañoo jógee ca Égypte ñëw ci Sénégal ngir qualifier te xam nañ ne loolu ñu bëgg du yomb ndax attaque gu Sénégal bi gat attaque bu diis gann la kon ñoom noppi nañu ngir kar waa Sénégal ba du ñu dugal ab bit ñoom ñu mën a qualifier kon Sénégal na waaj bu baax a baax match boobee xam ne Égypte na mu footballé woon aller ba rek la nam ma footballé retour bi kon dinañu kar gabaski ma mu feggoo woon ak la mu wax moo di ñoom ñëwuñu rek ngir ne yàcc ne yasar di la ñu bëgg moo di qualifié ca match boobee te bu match ba jeexee kat ñoom bu ñuy ñibbi dañuy ànd ak ndam li yóbbaale ko loolee gabaski moo ko xamle ci fàttali match boobee nag bii yi nga xamante ni fédération bi defaroon nañ ko ngir stade boobe bii yëpp jeex na kon gise fermé la suba daal stade boobe li ñu bëgg moo di ku fa dem nga supporter jàppale équipe nationale bu Sénégal ngir ñu mën a ndax kat ñii di waa Égypte ni ñu ñëwee nii la bëgg moo di kat kar ba match ba jeex ñu mën a qualifier waaye ñun bu ñu leen may loolu ci terrain bi bu ñu leen ko may ci tribune bi kon nañu jàppale équipe nationale bu Sénégal gaañi vidéo bi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah